Mhm. ñu ngi lay dégg ngay wax affaire waxi sàngara ak kuy tox yàmba ak kuy tox cigarette loolu tamit sa xam-xamu alxuraan may na la ko ci wala may na ma ko ci ndax euh, lépp dafa bokk ci loo xam ne day jàpp doomu adam parce que naf su mën na la jàpp ba nga ci loo xam ne pour nga génn ci sax problème moo dal ñu bëri dañ koy jékki ci po baa ci leneen boobu boo doon ci loo xam ne mënatoo ci génn mu mel ni euh, euh, maanaam naan sàngara jéem ci ay tux yu bon yooyu ci xeet bu nekk loolu itam yàlla may na ma ci dama ciy dimbali lu bëri. Mm, léegi yow sàngara. Mm-hmm. tux yamba ak tux cigarette daal yamba ak tux cigarette. yàlla may na la ci boo ko ku ci taxaw ak daal. ku ci taxaw man daal dinaa ci def sama kenn përtan ci kattanu yàlla. salaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tey ñaan yàlla mu def ko ci àdduna bépp. di remercier ñëpp ñi nga xam te ne ñi ngi suivre seen bii di lu xew TV tey jégalu bu baax a baax nag ñi ngi tuub di jégalu ci la fekk ñu yéex a tontu seeni message di ñaan ngeen jéem ñu comprendre parce que message dafay bëri trop te du tout le temps la ñuy nekk en ligne parce que am na yenn instant yoo xam ne daf ñuy fekk ñuy liggéey loolu moo waral ñuy yéex a tontu message mais ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax. réaction yi ngeen ñi envoyé aussi tamit mooy seen commentaire yi pour ñu koy dugal YouTube parfois day am ñoo xam ne dañ leen envoyé message ni la ba léegi gisaguma sama commentaire ba léegi jàllalee jàllaleeguñ ko mais dafa fekk nii rek liñ ciy jot mooy bëri donc du mën a jàllale yëpp en même temps moo tax ñu ko doon dagg-daggee di ko def ay vidéo finalement sax gis ngeen ñu boole lépp def ko benn live une de temps c'est parce que liñ ciy jot mooy bëri donc képp koo xam te si envoyé ngeen sa commentaire mu yéex a dugg ñu ngi ciy jégalu ni commentaire di bëree tamit du ñàkk des fois nga fàtte ci benn wala ñaar wala yu mel noonu képp ñu envoyé sa commentaire aussi tamit te gisoo ko ci YouTube bi ñu ngi jégalu te xam ni tamit des fois day mettre suñu côté donc ñu ngi ñaan ngeen gën ñu comprendre ci côté boobu. ñoo ngi ciy jégalu bu baax a baax nag di leen rappeler aussi que ñun ñoo ngi fi pour ñëpp ubbil nañ ñëpp suñuy bunt te numéro bii nii mooy suñu service commercial képp koo xam ni da nga am looy jaay. bëgg mu am visibilité incha allahu boo ñu contacter dinañ ci waxtaan ak yow moo xam na ak lu mu mën a doon nga bëgg mu am visibilité nit ñi gis ko boo ñu contacter dinañ ci waxtaan ak yow. képp ku am également histoire boo dund bëggoon ko raconter mën nga ñu contacter ñu waxtaan ci. alors sans plus tarder dañuy jàll ci vidéo bi nga xam te ne moom lañu indil tey donc mu ngi concerner toujours seen série maîtresse d'un homme alors tey bi ñu seetaanee épisode vingt huit ba pare dañ ci noté ay points comme d'habitude bëggoon ci def taxaw seetlu ak yéen. donc première point bi ñuy njëkk a indi tey mooy tooñ jéggalu ñu gis Marème bi mu taxawee ak Jalika di jéggalu mu doon loo xamante ni nit ku rey mënu ko. te rëy dafa doon loo xamante ni dafa sonal ñu bari te baaxul parce que dinañ faral di wax ni. ku rëy du dugg aljana donc rëy baaxul en plus nit ki nga xamante ni si dafa rëy da koy xañ lu bëree bëri ci àdduna parce que am na yoo xamante ni di nga ko mën a am mais sa rëy moo lay jàpp ba tey jii nii doo ci mën a yegg te pour man tooñ jéggalu dara nekku ci comme ni ko olof di waxee rek sukk du tee booy jóg yóbbaale say um donc nga tooñ jéggalu taxul nga ñàkk fayda ki ñàkk fayda kay mooy ki tooñ ba pare mu wóor ni ko dafa tooñ ba pare mu rëyee dem jéggalu mais jali ko aussi tamit ànduma ak moom parce que nit bu la tooñee ñëw ni la jéggal ma war nga ko mën a baal parce que yàlla suñu borom moo gën a màgg ñëpp te dañ koy tooñ di ko jéggalu mu ñuy baal donc nit aussi tamit day baale te xam ni tamit juum day am parce que kenn matul donc bu ñu defee erreur aussi ñu koy reconnaître di jéggalu te yow mi nga xamante ni ne lañu lañ tooñ buñ la jéggaloo tamit nga jéggale alors loolu moo nekkoon sunu première point ñu jàll ci deuxième point bi waxoon nañ ci ci benn ci sunu vidéo yi mais dañ ciy defaat tuuti flash muy concerné pas bi nga xamante ni moo nekk ci chantier bi et vous avez vu tey dem na sax ba ni moom ci chantier bi lay fanaan parce que amul mbokk amul fu mu nekk te kaa yi mel noonu dafa bëri ci dëkk bi man je ne sais pas quelle solution pour situation boobu mën a dañ wala même bu dañul tamit mu wàññeeku à cent pour cent mais genre ni ñooñ jar nañuy bàyyi xel parce que am na ñoo xamante ne ñu ngi ci dëkk bi je peux dire que amatuñ fi mbokk wala peut-être que mënatuñu nekk ak seeni mbokk mais foo leen fekk il sont seuls et mag mu doy noonu bu demee bay wut liggéey pour am lu mu dundee xam leen ne amul lu ko gën a mu doon séquence boo xamante ne daf ma marqué trop parce que yow mi seetaan sax da ngay yërëm góor gi. alors ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi dund ci situation yi mel noonu ñi ngi ñaan yàlla ci kàttanam yàlla na leen teggi coono boobu ñuy dund ba delloo leen mbégte ndax franchement lii moom metti na trop bu ñu jógee ci point boobu ñu jàll ci suñu troisième point bi ça concerne biiram parce que tey dañu gis mu dem ci docteur uniquement pour mu dimbali ko mu mën a bàyyi naan gi muy naan et bu ñu dégloo moom d'après li mu li ko dugal ci naan influence la xaritam moom moo ko influencé ba muy naan lii lañ naan àndandoo bu bon day wàlle parce que xaritam moo ko influencé ni ko boo jëlee alcool bi dina la fàtteloo sa problème yi nga am bëri na ñu koy jël loolu moo tax ñu koy jël am na ci ñoo xamante ni nag man xam naa ñoo xamante ni dañ leen a yàq moo tax ñuy naan te mooy ñu ko bàyyi te bëri na ci dëkk bi mais am na ci ñoo xamante ni si ni àndandoo bon. moo leen ko yóbbe ak topp seen bakkan donc il faut aussi tamit ñuy maytu yenn fréquentation yi et nit aussi da nga war a am fulla ci sa bopp des fois nga am benn àndandoo mu leen la yéen ñaan ñi bokk leen dund mu jël yoon boo xamante ni si nii jëmalewu la fenn te amul mucc boo ko ci mënee génne nga génne ko ci te yàlla tax mais am na ñoo xamante ni liñ nekk nit mun leen cee génne donc genre boobu noonu mieux vaut nga écarté wu parce que tamit boo continuer di ànd ak moom mën na la dugal ci loo xam ne ëllëg di nga ko réccu donc parfois tamit dangay am fulla te bañ lépp lu ñu la dugal rek nga dugg ca te nit ki boo nekkee ci yenn situation am na yeneen façon yoo xam te ni si mën nga def ba surmonter say épreuve te doo jël lu bon te aussi c'est absurde nga nekk ci ay jafe-jafe ba ci génn di utiliser loo xamante ni si nii day yàq baaxul parce que alcool ku ne xam ne baaxul peut-être que moment bi nga ko jëlee dina la yóbbu foo xam ni dina la fàttaloo sa yenn problème mais c'est parce que moment boobu noonu nekkatoo ko lucide mais bis bu loolu wàccee di nga xam ni sa problème yi ñu ngi fa ba léegi kon le mieux mooy tey ku nekk ci problème yi mel noonu nga dem gisi médecin boo xam te ni mën na la ci jàppale wala nga gis koo xam ni mën na la ci ñaanal pour nga mën a tàqali ko ak loolu une bonne fois pour toutes mais jël ay wala jël ay drogue pour uniquement fàtte ses problèmes loolu du solution donc ñu koy moytu bu baax a baax alors suñu quatrième et dernier point mooy point bi nga xamante ni si instant bi moom la ñëpp di waxtaane mooy Lalla est-ce que réellement dafa tàggalikoo ak sagoom wala dafa nekk di teg benn piège ñii ni moo ko tey ñii ni teyu ko man nag damay jàngate ci ñaari côté yépp c'est possible que Lalla mën na tàggalikoo ak sagoom parce que tey ni ko Cheikh annoncé mariage bi loolu mën na choqué kenn ku ne am na nag ñu ni Lalla mariage waru ko beet parce que Cheikh waxoon na ko day takk te xamoon na ni Cheikh du doon génn ak Mariam si xamoon na ko mais xamul woon que ni Cheikh noonu lay takke que tamit instant boobu ñu nekkoon noonu prévoir woon ko dina takk en plus ni Cheikh doxalee mbiri dem takk ba pare Lalla toog préparé di xaar Cheikh ñibbisi mu ñëw rek annoncé ko ni ko takk naa loolu mën na bouleverser kenn ku nekk ñi nga xam te ñi nga xamante ni nag ñoom dañ ni Lalla ay fem lay teg ñoom fi ñu ko teg mooy que Lalla moom ak li mu joué foofu yëpp ci diggante Cheikh ak Marème xamoon lépp depuis le début mu ñëw teg ay plan ba xam lépp li xew ba pare bàyyi leen ci biir ñu ni ku mën a dékku loolu am dëgëraay yu mën a dékku loolu war nga mën a dékku annonce bi ñu la annoncé mariage boobu laa aussi tamit yanu na maana loolu tamit xel mën na ko nangu ku mën a dékku loolu continuer di teg say plan war nga mën a dégg aussi tamit annoncé bi ñu la annoncé mariage boobu mais ba tey tamit bu ñu dikkaatee ci vingt 28 bi ñu gis laal la ni muy doxalee ci biir hôpital bi tey man je me suis dit que ni su fekkonte ni day teg plan xanaa bu fekkente ni moom kese moo nekk dina toog ñu xam ni kat kii nii da doon teg plan mais même bi mu wéetee yéen ko gis mu ngi nekk ci rôle bi di jouer rôle ko tàggali ko ak sagom alors que d'habitude li ñuy faral di gis mooy. koo xam te ne si day teg dil bu wéetee moom kese dina changer comportement nekkaat nit njaay donc bu ñu xoolee aussi tamit ci côté boobu dañuy jàpp ni pour l'instant pour de vrai dafa tàggali ko ak sago donc mu nekk point boo xam te si nii xaw na doy waar ñii mën nañ jàpp lii ñii jàppalee mais comme niñ koy faral di waxee rek li ci kanam rawul ay gët incha allah lépp dina leer alors mbokk yi tey vidéo boobu la indiloon ñi ngi dellu encore une fois di tuub bi jégalu lépp lu fi wax mu laal nit ñi ngi jégalu bu baax a baax xam ne du woon suñu intention wax ji nag lépp lu fi jub ngeen xam ne ndimbalu borom bi la mais lépp lu dëng ngeen xam ne ci kiy wax la parce que nit matul ñi ngi tuubaat di jégalu ñëpp di leen jox dig daja ci beneen vidéo incha allah